jërë ngeen jëf docteur Babacar Niang mi jiite suma assistance jàpp nañu ko l'observateur moo xëy joxe xibaar bi ba dolli ñu ci ne ca mbir dina njaj bee ca Podor fa la ko jàppe waa sûreté urbaine ñoo ko convoqué ngir waroon ko auditionné ci événement yi fi amoon keroog alxames gaa demoon këram yóbbul ko convocation toog di ko xaar waa ji ñëwul l'observateur nañu ci la alkaati yi ne waa ji di docteur Babacar Niang àbbu na njool mi maanaam daw ndakaaru mu war a dem wuy ji enquêteurs yu sûreté urbaine yi waa sûreté urbaine yooyee mu di gaay commissaire Bara Sangaré yi l'observateur ne nañu convoqué woon nañu docteur Cissé ba auditionné ko docteur Cissé mooy médecin bi doon faj Ousmane Sonko ba mu entré suma assistance waaye moom docteur Cissé di médecin traitant bu Ousmane Sonko l'observateur ne nañu la mu wax enquêteurs yu sûreté urbaine yi ku ko dégg jàpp sa gémmiñ nee leen mënu wax lan moo dal Ousmane Sonko ndax lëndëm lëndëm yu am ci hospitalisation bu Ousmane Sonko fulu total moo am ci lan moo dal dëgg-dëgg Ousmane Sonko ba taxoon mu entré suma assistance ba bi xam leen fa ñoom bañ leen ñu wax moo di mënuñu woon am accès ci Ousmane Sonko doon tere ngir ñu nee na xamul lan moo dal Ousmane Sonko personnel ba ca suma assistance it bi laaje li ñu leen wax moo di ab équipe spéciale ñoo ko doon suivre moom Ousmane Sonko libération dañuy xibaar ne manifestation yi amoon keroog alxames ci réew mi fukki fan ak juróom-benn ci weeru mars coow li ba léegi pënd bi wuréegul arrestation yeeg information judiciaire yi ñoo ngi mel ni tull ak màlle docteur Babacar Niang borom suma assistance gendarme yi jàpp nañu ko démb Mohamed Bilal Diatta maire bu Kër Massar Sud moom it ñi ngi ci tànki tekk loxo ak juróom-ñaar yi ñu fi jàppoon ci manifestation yi ubbi ay information judiciaire ci ñoom ca la ñu jëm coordonnateur bu magi yi Ousmane li ñu Sonko ca yoon ak ñamu àndal ci lañu jëm li tax nee nañu ñaar ñi faatu ci réew mi ci manifestation yu fi amoon keroog mu di Guy Mamadou Ly ca Médina ak Mamadou Kokka ba ca Bignona waa Benno Bokk Yaakaar ne nañu Ousmane Sonko ak i gaayam ñoo sooke li tax ba ñaar ñooñu ñàkk seen bakkan journal L'Info bind ne nay meeting Ousmane Sonko woote waa Benno Bokk Yaakaar li ñu fas yéene moo di fekk si ko ci ñu fekk ci xët mu njëkk journal Vox Populi maître Amadou Ali mooy vice président bu conseil d'administration bu RADDHO mi ngi wax ci xët mu njëkk yéene kaay bi ne ni ñuy jëfandikoo ak ngir bëgg France xool Sénégal ak li fi xew jamono ji département d'état bu Amérique yi Sud fang Sénégal guddi ñu toll journal bi nee nañu moo di mbirum droits ak tolluwaay gi ci réew mi jamono ji tension politique bi am ci réew mi ak waxi troisième mandat bu Macky bi waa këram yi bëgg mu doxal beneen mandat moom Macky Sall kenn ca ñoom di Abdoulaye Dièye njiital mouvement Siggi jot na directeur général aéroport international Blaise Diagne di AIBD sursoi ne nañu plateforme bi mu tàmbali woon tudde woon ko plateforme Siggi ak Macky 2024 boobee mu lancé woon doon ci benn million yu ngir bëgg président Macky Sall samp doon candidat ci élection présidentielle yi 2024 yi sursoi mi ngi ñuy xibaar ci xëtam mu njëkk ne moom Abdoulaye Dièye amagum na xaat 247 instruction maanaam santaane na ñu bàyyi xel bu baax a baax jigéen ñi ci diaspora bi ci wàllu entrepreneuriat féminin soxna Naata Samb mi jiite fees fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur yéenekaay bi nee nañu moo ko xamle démb ci forum bu ñu doon amal ci Ndakaaru doon ci waxtaane wàllu entrepreneuriat jigéen ñi ci diaspora bi ndaje mi doonoon ci teewaayu kuréel yu ci mel ne FONSIP DER Promise ak FNCF sibbi xotaan fii ci Ndakaaru l'observateur mi ngi ñuy wax lu garaaw lu fi xew ubbil bi benn waay moo takk ñaareel nekk ci ak lune de miel am mook ñaareel moom waa ji l'observateur nee nañu mi ngi bëgg yàqu ndax dafa violé rakki aawo bi.